weeru koor mu nekk période bi nga xamante ni jaaykati lido yi ci lañ doon gëna gis seen bopp waaye nemmeeku nañ ni melatul comme bu njëkk ba jaaykat yi fare ca marché Tilène di ci àddu lido bi day njëttal koor lay dox na tuuti mais daan gëna dox nag par rapport ak bu njëkk ba quoi bu njëkk ba moom dafa doxoon mais léegi application portable yi moo tax léegi doxatul noonu quoi waaw dafa waaw wàññi na jaay wàññi na jaarta bi daal ni mu waroon a ciyee daal melatul noonu ko waaw. waaw njaayum lido bi waaw dox na mën nañ ne dox na taxaw na ndax njaayu ñu bëri jaayatuñ lido. di xamale itamit yokkute produit bi. dafa yokk li ñu ko doon jaayee bu njëkk mille francs léegi mu ngi jar 1250. mais nag bu gënoon wàññeeku xam naa ne dinañ dina dina gën a jar quoi dina gën a jar quoi. Euh, su paasee. ñu ngi jaay yeneen produit yi rek ay puus ay bisu jaaru affaire yeneen bagage yi quoi. di ñaax ñu yombalal mbir yi ndax mooy li gën ci ñëpp su ko defee ñëpp gis ci seen bopp ndax jàpp nañ ni application bi du ñëpp ko mën a jëfandikoo.